salaamaaleykum wa rahmatulah ami internet de la nouvelle vision donc soxna Xarit Diop moo ñëwaat di leen nuyu di leen ziar bu baax baax di leen laaj seen jàmm yaram na leen wax ni namo nañ leen trop ñi ngi ñëwaat li sen deuxième numéro sur euh, l'émission vision santé donc yaakaar naa bii paase amoon solo lo mu dël woon ci automédication te suñu mbokk docteur Moustapha Diop defoon ko ñu koy jaajëfoo de passage. donc tey ñu ñëwaat ci beneen fànn mu dellu ci wàllu odontologie dañ gën ko xam ci mbiru dentiste yi donc tey ñu ngi dala suñu docteur Djibi Bari ñu fekk ko fii si clinique Chifa ci biir cabinet ñu bàyyi ko mu def présentation am docteur ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. ñu ngi lay fay soxna Khady di nuyu suñu mbokk internet euh, de la chaîne Nouvelle Vision. Euh, di jaajëfal. équipe bi nga àndal ñëpp. Mhm. ñëw fekk ñu si fii si chiffa mhm. pour euh, déglu ñu par rapport ak euh, euh, la santé. Mhm. particulièrement la santé bucco-dentaire. donc comme ni nga ko waxee ñu ngi tudd docteur Djibi Bari. nekk un chirurgien dentiste di liggéey fii ci clinique Chifa. am na solo xam naa comme ni nga ko waxee rek tey ñuy wax ci affaire centre bucco-dentaire mu war a ñëw si thème boo xam ne nii euh, chaque jour actualité lay doon parce que sonal na nit ñu bëri te du mos a doy pour ñu koy waxtaane mu dellu ci la carie dentaire donc tey docteur ñu war a waxtaane ci la carie dentaire tey jii suñu doon wax lan mooy carie dentaire lan nga ñuy wax. waa carie dentaire comme euh, ni ko ñëpp xamee mm-hmm. euh, c'est un processus pathologique mm-hmm. localisé d'origine externe. qui se caractérise par un ramollissement des structures de la dent c'est-à-dire que ben, processus le processus pathologique feebar la boo xam ne mhm. dafay euh, nekk lu ñu mën a localiser loo xam bon il directement fi mu nekk rek dañ ko mhm. mën a ko mën a localiser itam fi muy jóge itam origine externe c'est-à-dire luy ñëw jóge ci biti ñëw fekk ci bëñ bi moo koy moo koy moo moo koy causé ni muy manifesté woon nag mooy dafay Euh, dissoudre c'est-à-dire dafay seeyal mhm. tissu yi nga xam ne ñoom ñooy muuru bëñ bi ñu gën si miiñ émail bi mhm. léegi nag bu demee ba dissoudre euh, tissu boobu émail boobu mhm. nga commencé am creux boobu cavité boobu donc cavité boobu ngay am moom mooy moom moom la tuddee carie dentaire carie dentaire léegi nag euh, causes yi nag bare na xam naa incha allah après dina si ñëw ci wàllu tënk daal loolu mooy carie dentaire. mooy carie pax yi nga ne mooy am ci biir bëñ yi am ci bëñ bi te nekkul ci biir la jóge mais de façon externe la fa jóge si biti ñëw si biir ñëw si créer donc euh, benn cavité foofu noonu dem ba ba gas bëñ bi donc ci gàttal loolu lañ naan carie mhm. léegi par rapport ak noirceur boobu noonu pax bee ko waral wala si yeneen cause yi la bokk waaw noirceur boobu ngay am ci cavité bi aspect bi la aspect bi muy joxe la. ah d'accord aspect couleur bi muy bi muy bi muy joxe la. parce que bu démé bu euh, tissu bi bu démé ba euh, infecté. Mhm. donc motax muy changer teinte boobu noonu. d'accord bu démé ba changer loolu motax muy am couleur couleur noirceur boobu ngay am ci cavité bi. d'accord voilà légui dañuy jall ci point bi ci top mu dellu si étiopathogène bi. waaw dellu carré. voilà donc éthiopathogénie buñ ko waxé moy mhm. naka la kari bi di amee kari bi nag balaa mooy am il faut que bañ am nag mhm. ku amul bañ doo am kari mhm. loolu mooy première condition bi mhm. deuxième condition bi il faut que apport externe boobu ñu wax léegi ñëw cest à suukar la apport externe bi suukar la buy jógee ci biti ñëw dugg si gémmiñ gi bu ñëwee dina fekk bëñ dina fekk itam les micro-organismes muy bactéries yi bactéries yi bu ñu ñëwee légui nak sucre bi ñëw na bañ amna bactéries yaa ngi fi légui dina am 4 quatrième aspect bo xamni moy l'aspect temps temps bi sucre bi def si biir gemit bi mm-hmm. pour kay bi mëna am d'accord parce que bu fekkente ne da nga jël sucre bi dans deux minutes nga dem brosse conditions yi du favorable mm-hmm. mais il faut que quatre aspects yi dajé mm-hmm. quatre conditions yi dajé buñ am bactéries yi moom ñu ngi fi parce que nit ki fi mu jiddo ba fi mu génne adina bactéries

d'accord dina ça veut dire que nit ki bu lekkee suukar bi. Mhm. li tax ñu lay wax naan automatiquement boo lekk waat demal demal demal brosse. Mhm. c'est parce que quatrième aspect boobu ñu war compléter processus bi. Mhm. nga dagg nga dagg nga dagg nga dagg ko mu bañ a am. temps boobu sucre parce que sucre bu ñëwee. après bactéries dañuy jël sucre boobu. nga lekk moom la ñuy utiliser parce que ñoom dañ ko soxla pour seen dund. moom la ñuy jël transformer ko en acide. xam nga acide fu mu laal day day day day day day day day day seey day day dissoudre. Mhm. loolu nag bu bu ñu jëlee sucre bi ñu soppi ko en acide acide boobu nag moom mooy tax émail bëñ bi di dissoudre. d'accord donc du doon si benn yoon kese. Mhm. mais répétition bi moo si ëpp solo. parce que boo si ñun suñu mbokk ya ca kaw ga. Mhm. boo ñëwee si teen par exemple. pind bi. fi goj bi jaar. di nga gis marque boo xam ne creux boo xam ne ni mu mel xam nga ça veut dire que li ko def ni du benn yoon rek bu bu euh, goj bi jaar mais répétition bi nga xam ni goj bi ni muy ni muy ni muy dire ko si si si pind bi mhm. répétition moom mooy dem ba mu def fa creux donc itam processus bi itam noonu lay demee ci même bëñ bi donc du benn yoon bi nga lekk suukar rek moom moo koy waral mais bu fekkente ne am nga benn habitude boo xam ne dafa constant mhm. donc tout le temps yaa ngi grignoter yaa ngi lekk suukar mhm. te doo brosse normal

wala lekk bi nga lekk te mu saf suukar. te mu am suukar te mu am composition sucre. donc loolu la. Mhm. suukar bi en à bi wala suukar bi nga xam ne mu ngi ci lekk. mu ngi ci biir lekk mu ngi ci biir lekk te par rapport ak euh, pâtes aussi dañuy gis yoo xam ne dafay saf suukar tamit léegi yooyu noonu est-ce que du benn benn benn benn cause tamit. non pâtes du ko du ko du ko du ko du ko du ko causé. pâte du ko causer parce que pâte yi goût bi la. goût sucre bi la mais composition sucre bi wara tax nga am kari euh, bi. Mhm. amul. parce que des fois dañuy jël juste rek pour joxe ben goût bo xamné dina mëna euh nek supportable. Mhm. ci personne bi nga xam ne ngi ko utiliser. Mhm. wala ba ben des fois nga am pâte yoo xam ne am goût mentholé. comme xam nga mais du doon teneur bo xamné dina tax. nit ki bu ko jëlee dina mën dina mën dina mën créer dina mën mm-hmm. créer créer problème. d' accord sànq sa définition yaa ngi wax par rapport ak euh, nuancé moo doon laajte. Mm-hmm. nga ne par rapport ak euh, état d' infection bi ni muy yàggee. Mm-hmm. donc mooy waral nuancé boobu di am. léegi ça veut dire que kon am na kër yoo xam ne mën na nekk si nit ki te doo gis benn couleur boobu noonu. mën na mën na nekk. aspect boobu mën na ko bañ a am. mën na nekk si kari bi sax kari bi mën na mën na fa nekk sax nit ki du ko mën a gis. du ko mën a gis. ça dépend ci localisation bi. dina nekk ay caries yoo xam ne. Euh, par exemple les caries surnoises. c'est-à-dire fi ñaari bëñ yi taqaloo. mën na fa am bëtt bëtt boo xam ne. carie bi commencé foofu. te yow mii boo gisee sax da boo ñëwee si dentiste bi sax mën na xool ba ñu teddu du gis carie. du ko gis il faut que mu dem voilà il faut que mu def examen complémentaire da jël radio wala sonde. Hmm. dogay meuna détecter ni que ni fi karim ngi. kari mu ngi fiy développé kari mu ngi fiy développé. d'accord voilà. Hmm. légui par rapport ak complication nga xamné mom la meuna a indi moom kari bi. Hmm. waaw complication yi bëri na mën nañ complication locale ci bëñ bi en tant que tel. loco régional jóge ci bëñ bi dem ci yenen tissus yi nga xamné ne ñoo composé nek ci gémmiñ gi. mo xam. Euh, gencive bi muy signe bi mhm. wala yah bi nga xam mom mo moo téye bi mhm. ak composition ak complication d'ordre général mooy jóge ci gémmiñ gi en tant que tel ba dem ci walu état général ci walu yaram bi li li des ci yaram bi mhm. comprendre les complications bi ci ñëk moy. mëna dem ba nit ki ñak euh, bëñam mëna tax nit ki ñak bëñam té dans organe comme toutes les autres comme tous les autres organes ñom ñoo composé nit ki. Mhm. comme ni baram amé solo ci nit ki comme ni tank amé solo ci nit ki. Mhm. donc bëñ bi itam non la amé solo ci nit ki dafa am équilibre bu muy participer. ci ci ci ci ci nit ki. Mhm. mais Sénégal dañ ko banaliser de telle sorte que. dindi bañ di du dara ci ñom mais fekk ni. dafa am benn équilibre boo xam ne da koy participer boo gisee ñenn yenn sport de combat yi wala ñi nga xam dañuy def armée ñu leen di tere perte de dents. ñàkk bëñ ku si ku fa dem itam te amoo te nga ñàkk bëñ dañ lay demander nga dem remplace ko doo koy ñëwaat. donc parce dafa am équilibre bu ngay joué ci yow. Mm-hmm. donc c' pas par hasard que yàlla jox nit trente wala trente deux dents. Mm-hmm. mais dafa am lu muy solo bu mu am bu mu am si am si nit ki. Mm-hmm. donc première complication bi mu mën joxe mooy nit ki perte. perte gagnant perte bañu bañ bi dem ba yaqku dem ba toj wala mu tollu fo xamni ken mën du ko récupérer mu dem ci nantis mu dindi ko ndax dogma yeen say ci dañu gis ay bañ yo xamni ni da fay dem da fay jeex danaka signe bi kessa ngay gis lolu caribé ko waral wa caribé kay waral bañ bi di dam di dam nank nank ba dem ba jeex ba racine kessa ño fay ño fay ño fay dess benen bi mën na dem ba affecter signe bi affecter signe bi wala mu dem ba yax bi nga xamni sax bañ bi fa la fa la samp mu dem ba affecter ko yeneen complication yi mën na dem ba ci complication des fois nga gis ñoo xam ne sax ay problème sinusite ñoo xam ne si problème bañ lañ ko jëlee mm-hmm. da ngay gis koo xam ne day am sinusite sonn ba dem bu demee ORL ORL bi conseil mu ne ko est-ce que amoo problème bañ ñu dellu bu ñu remonté origine ba bañ bee ko waral d'accord kon bañ bi mën na joxe ba sinusite mën na dem mën na dem alors que sinusite moom mu ngi ci ci bakkan yi parce que dafa am koy koy bi cohabitation bu la wonantee rajo bañ di nga gis sinus bi li mm-hmm. mu taqaloo ak ak ak ak sinus bi xam nga sinus bi organe la organe la sinus bi organe la mm-hmm. bu nekk si si si si si suuf mbakkan bi. Mhm. léegi nag bëñ bi racine bi ba ñu si kaw dañu am proximité. ak ak ak ak ak ak sinus boobu noonu am na dents yoo xam ne sax dañ leen tuddee dents sinusées des fois sax nga gis ñoo xam dañ leen di dindil bëñ ba euh, sinus bi ba fekk sinus bi dafa am proximité. Mhm. Euh, ak ak ak ak ak ak bëñ bi donc. Mhm. léegi nag bu damb bu infecté infection bu rombee ba mën a dem ba ba laal sinusite bi nit ki am si nga gis ñoo xam ne dañu am problème euh, problème euh, nu mu tudd ci au niveau euh, seen ganglion yi ay problème ganglion ñu koy am voilà yooyu yëpp complication yi la infection moom mooy dem ba compli compliqué ba foofu mhm. comprendre mhm. donc buñ jógee foofu complication d'ordre général am na ñoo xam ne ay méningite yoo xam ne si problème ba ñu la jógee ah, ñoo xam ne problème cardiaque yoo xam ne bu ñu origine si problème mm-hmm. bi la jógee ñoo xam ne sax dañu dem ba am rhumatisme articulaire fekk mm-hmm. problème bi infection si bañ bi la parce que ni nga mën comprendre mooy mm-hmm. deret ji dafay circuler dafay circuler léegi nag si toutefois que infection bi dem na ba romb bañ bi léegi deret ji nga xam ne moom mooy deret ji ñëw na ba si bëñ bi war a delluwaat. Mhm. léegi nag passage mën na fa foraale germe bactérien bi mu transporté ko feneen. léegi bu ko transporté bu fekkee ne dafa dem mën na yàlla mën na dogal mu dem greffé wu ci ci ci ci ci xool bi. Mhm. wala mu dem greffé wu ci rein bi wala mu dem greffé wu feneen fu mu ñëw nag mën na fa créer benn problème boo xam ne fekk moom. jël nga mu ngi jóge woon ci ci woon ci kaw ci ci ci kaw dëgg la comme comme genre ni koy olof di léeboon naan ay du yam si bopp borom kon maanaam bëñ boobu noonu en général ni ñu fexe ba infecté ko mhm. te xam nañu yaram ku nekk daanaka benn entreprise la deret bi fépp lay wër moom moo yóbbaale germe ba dem si bopp bi dem si cœur bi bay dem ci articulation di créer ay rhumates kon gis nañ nit ñi dañ koy banaliser mais c'est très grave kon te gis nañu en général xale yi tamit dam leen dam leen di daal dafay bëri trop trop mhm. waaw yi parce que actuellement sax On a étude pratiquement plus de 60 des enfants à l'âge scolaire ici au Sénégal ont des problème problème à l'âge à partir de 6 ans mm-hmm. enquête au Sénégal à partir de 6 ans plus de 60 ont des problèmes am problème de problème bucco-dentaire mm-hmm. léegi waral changé bu njëkk mel woon nii sunu mhm. maam yi xamuñu ko woon mhm. mais habitude alimentaire ñoo changé xalé yi léegi li ñuy seen contact seen rapport ak sécurité dafa def def def bëri am na benn boroom xam-xam buy wax ni sax mhm. mu un enfant de 7 ans d'aujourd'hui boo xolé lek na ci quantité sucre bo xam ne maamam na ba dé lekul lekul quantité bu toll noonu xale bu am 7 ans tay li mu lek ci soukeur mamam nga xamni c'est trop tôt quoi c'est trop tôt que ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu embrasser sucre bobu nak légui liñ ci lek donc chocolat yi etc etc tangal yek lepp buñ ko boolee ak euh, repas principal repas principaux yi rek mhm. donc ça devient benn quantité de sucre boo xam ni mhm. donc dafay favorable pour que conditions réunir pour que te te léegi presque alimentation boo jël sax dina am benn base am na sax am na sax euh, lu gën a précoce loolu sax mhm. muy li ñu tuddee les caries du biberon caries du biberon mooy ñi nga xam ne dañuy nàmpee ak biberon dañuy nàmpi ak biberon mm-hmm. surtout di fanaanoon ak biberon bi ñooñu en général dañuy seen ba ñuy sax à l'âge de deux ans trois ans rek commencé nañu am kër yi deux ans trois ans par rapport ak meew bi la wala meew meew bi ñuy nàmp meew bi ñuy nàmp ak sucre bi surtout dañ koy am na ñoo xam ne xale dañ koy dañuy fanaanoon ak bi Mm-hmm. donc loolu moo koy waral moo koy moo koy jox bañ na nga sax tur noonu lañ classifié caridi biberon. caridi biberon lañ ko tuddee. kon kon kon maanaam tey jii kii fanaanoo ak ween moom mun na bañ a am kari mais kii fanaanoo ak bi moom mun na ko développé. kii fanaanoo ak ak bi. kii fanaanoo ak ween bi peut être bu fekkee ne dafay nàmp. Mm-hmm. bu bu doyalee ñu rocc ween mu continuer nelaw bu nelawee ñu rocc ween bu mu continuer mm-hmm. kooku y' a pas de problème problème bi rek mooy mu continuer di fanaan ak ween bi toute la en lui mhm. sans arrêt wala muy fanaan ak biberon bi voilà les artificiels donc côté boobu daal euh, dafay euh, joxe carrément augmenter euh, risque mhm. ni nga ko développé si yi am na solo macha allah. Mhm. léegi tey jii bu ñu dugg ci wàllu je ne sais pas la ñuy wax wala prévention la ñuy wax par rapport ak carrière yi. tey jii lan la ñu a indi. voilà donc affaire bi moom la.

il faut que ñu jàngalaat leen lan moy bëñ. Mhm. ñu xam ko dabar ñu xam ni bëñ importance bi mu am ci doomu adam mhm. importance bi mu am ci doomu adam mhm. donc si boba nak lañuy mëna agir ci walu prévention bi. prévention bi dafa nek lu lu lu lu lu dama façon globale. nit ki dafa war am hygiène de vie. mu xam lu muy lekk parce que borom euh, nitu yalla ba daan wax mhm. euh, yaram yem ci lu lekku. Mhm. ngay mhm. donc nga xam donc premier aspect ci prévention deuxième aspect deuxième deuxième côté c'est l'hygiène, hygiène dentaire nga respecte respecte ko. temps de brossage. ak nombre de brossage.